asalaamaaleykum waa àdduna bépp ñu ngi fii ci kër sëñ Abo Sall ci nganuk sëñ Cheikh bi ñëw di xool ci jumaa ji liggéey bi ñu tombe fekk suñu jëwrin sëñ Baye Laa Ndiaye mi xam moo fi nekk sëñ Touba ñëw ci liggéey bi bég ci lool ànd ak sëñ Abo murit yëpp bég kontaan nañ lool sëñ Mamadou Ndiaye kontaan nañ bu baax sëñ Baye Laa looy wax waa Pikine gi yëpp ci liggéey bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ndax lu toll ni kër gii mu yor nga xam ne bu ko doon jaay tey milliard du taxaw mu jox ko yàlla def ko juma nañ ko ñaanal yàlla ak mbir topp ci te walam yokk ba ni mu ko bëggee mu yeggee noonu te murid yëpp fekke noo ngi woo waa Pikine yëpp kenn ku ne na ci jàpp man na ko waaye alali julli yi la kon nag waa Pikine nañ ci jàpp nañ ci war a Baye Abo lay wax waa Pekin yëpp waa at ñëpp ñu ngi lay déglu ci liggéey bu màgg bii nga yëkkati l'islam liggéey ko sëñ Touba yàlla na nga ko yëgal jàmm te ko ak yow kon bismillah xanaa mbégte lool ci dara ji ma am tey rek ñu fi Amadou Mbacke déglu fi Abdoul fi tey ci kër gi ñu liggéey bi fekk liggéey bi Sénégal rek taxaw tey xalifa général bi mu mel na tey jii moo fi moo fi yëngu tey kenn ku ne xam na suñu Cees lépp booy teg tànk bu ne ku tegu rek doon lislaam nekk fa la suñu Cees bi dem jàmm waa njaaral ko yàlla ñu gudd fan yaa ngi koy wér te daal waa Pikin yëpp la doon jullit yëpp la taalibe yëpp bu waaye ma nekk rek ñu ne ñun daal mos nañu yéene liggéey bi ñaan yàlla ñu àggal ko ci te lépp luñ ci yàlla ñu doon wax julli yi ndax lu ëmb lépp yàlla boole ñu ko loolu yàlla ñu ko amiin amiin amiin jërëjëf jërëjëf Sall jërëjëf jërëjëf